honorable député Sanu Dione ñu ngi lay nuyu. ñu di fàttali ni yow député ca assemblée nationale nga itam bokk taxaw Sénégal honorable gis nañ la nga xam ne moo xew ci assemblée nationale daanaka toxal nañ li nga xam ne moo jëm ci date bi ñu jàppoon ci élection présidentielle yi fukki fan ak juróom ci weeru décembre lañ ko jàpp léegi euh, li ni mel nag daanaka mu am. ay xiiroog ngaa yi nga xam ne amoon na ci assemblée nationale ba yenn ci député yu opposition bi dañ leen ci mujjee génn ban commentaire ngay def ci loolu. mais d'abord rek nga may ma ma ñaawlu ma ñaawlu doo si ñaawlu mun a yem loolu xam ne warul ñu ngi koy seetaan mais baaxul ci république ñuy am assemblée nationale voilà la deuxième fois ay élément élément GIGN dugub ci biir hémicycle bi. di caxat caxatee ay député dama ne euh, lii rafetul du lu baax GIGN xajul ci député GIGN seen formation c'est des professionnels seen liggéey weesu na assemblée nationale GIGN bu génnee rek lu sérieux moo tax mu génn xajuñu ci ñun seen formation ëpp na ñun ñooñu fu ñu leen di gën a xaare wax dëgg yàlla mooy ci jafe-jafe réew mi te loolu mooy président assemblée nationale nee na dangeen bëggoon bloqué li ni mel moo tax mu ñu indi leen président assemblée ci ban article la jël ak ci lan la sukkandiku pour wax ne dañoo bloqué parce que attention parce que président assemblée dafa far bien que dafa tëdd jaaxaanaay président dafa indi dañu indi benn loi pour modifier benn loi constitutionnelle boo xam ne loolu jaaduwul loolu du suñu liggéey assemblée nationale warul mun a traité benn disposition euh, ci constitution boo xam ne dafa am clause d'éternité deuxièmement dafa am procédure ñu xamal président ne ko ci article soixante quatorze muy question présidentielle ñu ne ko réunion bi warul am wax ko disposition loi bi yëpp ak disposition disposition règlement intérieur pour xamal ko ne réunion bi ñu def nii commission ba léegi ñu ngi jalgati loolu moo taxoon réunion bi gudd am plus de trente quarantaine d'orateurs ñuy discuter sur la forme boo demee tribunal balaa ñu dugg sur le fond on on voit sur la forme ndax war nañ tenir réunion war nañ ko tenir l'opposition a amené tous les arguments pour woon président assemblée que ne réunion bi c'est commencé na ci commission bi nga xam ne gouvernement defaroon te gouvernement ñëwul te article 43 nee na lu mel ni buy aw gouvernement dafa war a teew. lu tax teewuñ. xam nañ ko am na luñ ci jot am na luñ ci xam mais ñun pour bañ a dugg seen affaire interne dañ ne dañu ne 43 daal nee na gouvernement bu gouvernement teewul nag dañoo war a dàq réunion bi. boo seetloo ci biir salle bi bi mu manqué ñaari vice président dañoo arrêté travaux yi vérifié ba président Bara Gaye duggaat ñu door a continuer kooku règlement intérieur la loolu moo tax ñu wax président non réunion bi dafa arrêté bu ne ñu léegi dañ def disposition contraire ñu voté ñu ne ko déedéet lu toll ni constitution ngay def loo xam ne lii dañuy am débat de fond mu bañ ci la woo nag GIGN pour mu génn ñu salle bi. mais bu waa GIGN xamoon ne dañoo transgresser loi mais lan moo gën a ñaaw ñuy violer ay loi ay règlement intérieur président di ko voté kan moo d' accord ñu violer règlement intérieur dañoo voté kan moo si d' accord disposition bu ñu indi ñu ne leen texte yi ñu ne kon dañ koy voté ndax ñu daw jàll ñu ko déet quand ça ne respecte pas le règlement intérieur kenn du ko voté kenn du voté jalgati loolu moo tax mu wóor réglementé mais xamul ne benn objectif boo leen seetloo sax duñ jël parole. léegi li ni mel lan moo war a nekk seen taxawaay yéen député ak lan ngeen nar a def. mooy dañu attaqué décret bi ak loi bi devant le conseil constitutionnel. jox nañ leen ko. non joxaguñ ko ba léegi <laughs> nit ñi nëbbe décret bi ñu ngi nii ñu ngi nii assemblée di xaar parce que xam nga projet de loi bi mënoo ci def recours parce que loolu projet la mais mais. proposition de loi bi ñu amandé définitivement moom la ñuy xaar ñu jox ñu ko notifié ko boobu rek te sur la base sur la base de cette loi votée amendée ci lay saisir le conseil ci xam nga réponse conseil yi ba pare yow sax xam nga ko yow sa bopp xam nga la réponse du conseil constitutionnel. lan la lan moo war a nekk réponse conseil constitutionnel. conseil constitutionnel Macky Sall daf ko laajoon dama bëgg a yokk sama mandat yaa ngi fàttaliku. mooy sept ans bi mu ne daf ko bëgg wàññi def ko cinq ans conseil bi ne ko lu jëm sa mandat la durée du mandat sa prolongation et tout loolu mënoo ko yokk mënoo ko wàññi c'est une clause d'éternité mënoo ko loolu bu ko waxaat léegi assemblée nationale moo ñëw di ko laaj ndax président dañoo bëgg yokk président dañoo bugg a yokk mandat président lu mu lay wax lu mu lay tontu normalement léegi man li ma tontu man laa leen di tontu kon xam nga leer na léegi nag lan la war a poser question du tontu euh, conseil de dañuy xalaat xamuñu dañuy laajte est-ce que balaa boobu conseil constitutionnel bi dina fi nekk wala du fi nekk. loo ci njort ñu tas ko wala. ah ñoom ñu koy tuumaal ñoom opposition libérale ji jut baaraam premier ministre jut baaraam conseil constitutionnel ñoom pouvoir bi ñu war a jàppale waa Benno yi war a jàppale seen premier ministre. ñoom dem jàppale ñi tuumaal premier ministre mais suñu xel day ñaaw. am na lees waxul. am na lu ah jeex na am na lu lees waxul donc loolu moo tax Sénégal yëpp boo def xëpp uppi seen bët xool Macky Sall naka lay def ak conseil constitutionnel décret bi lan moo tax ba léegi génnewu ko ñun aussi six jours yi ñu am six jours yi ñu am ñu ñaan yàlla balaa boobu. ah ñu ngi rafet jot ci conseil constitutionnel ne dina fi def ñu bàyyi ñu def seen liggéey loolu mooy li nga xam ne ñun mën nañu gëm nañu bàyyi constitutionnel parce que les décisions du conseil constitutionnel à tort ou à raison s'imposent à tout le monde mais Khalifa Sall daaw na fi deux mille dix neuf bokkul élection Karim Wade ainsi de suite Bougane Gueye Dany Abdourahmane Diouf ñoom ñëpp tey dañ leen dindi ci élection yi am nañu dëgg amuñu dëgg l'essentiel conseil wax na. léegi beneen bi mooy enquête parlementaire bi nga xam ni euh, daanaka commission bi ñoom ñu ngay wéyal seen liggéey waaye yow am na ci taxawaay bi nga xam ni am nga ko ci lan la. waaw li ma ci taxaw mooy ñi leen taxoon jóg feeñ na leen taxoon jóg mooy reposer euh, dañoo indi benn prétexte am nañu wax nañu dëgg wala waxuñu dëgg. biñ ko ñëwee ñun dañoo dañoo jàpp ne dañoo war def commission d' man mi ci laa bokk taxawu Sénégal aussi ne commission d' enquête pour leeral d' accord nañu bi ñuy def commission d' enquête bi ñu jël suñu benn boo xam ne moo représenté non inscrit yi muy l'honorable député Sira Ndoye mu dem commission d' enquête bi ñu def seen calendrier defar seen bureau ñu yaakaar ne ñooñu day dem liggéey ñu ne fa ñukk loolu dem indil ñu projet de loi boo xam ne day reporter élection ah ñu ne waa ji lii liggéey bi ba façon liggéey la léegi bi ñu gisee ñoom objectif bi lañ la woon mooy renvoyer élection yi bon loolu ñoom jëm lañ ko ñu ngi xaar mais nag ñun aussi mu am suñu benn camarade de député maire de parce que njëng mu de ñun dañoo waroon def commission d' enquête pour xam waa Benno yi lan moo tax ñu yenu xeex bi loolu moo jaaxal ñi tëj Karim Wade exilé exilé ko te ñoo ñoo jàppale kat yi ñooñu may sonn man nag ci sama niveau. Mhm. ma ne naa jël ay ay man samay pexe samay enquête ak samay gëstu bi ma gëstoo au fond dox def ay recoupement am ay information ma gis ay indice probant ay indice probant ay indice mhm. yoo xam ne dama gis ne lii ñu wax am na si lu jubul am na aussi loo xam ne xam naa ko ci léegi. preuve lan la. preuve yi laa pare nii bu jox président commission d' parce que xam nga euh, loi bi daf ñu tënk code électoral dafa ne ñun ñi nga xam ne ay député lañu wala ñi nga xam ne ñu ngi ci commission d' enquête preuve yi nañ ko jox commission d' enquête bi. tey ngeen ko jot ñoom buñ ko jotee te réagir uñu te waxuma sax ñu réagir man dama wax ne dañ ma entendre parce que mu dafa entendre comme que man nag am na lu ma xam am na lu ma gis dama demander te nañ ma nañ ma entendre ma mettre à leur disposition éléments yi xam ne am naa ko muy muy euh, soupçon d'indice yi nga am yu wane ne gaa ñi li ñuy wax ak li ñuy def du benn ah dañ ma war a déglu dañ may déglu par force wala peuple bi déglu ma buñ ma dégluwul li ma xam dinaa ko wax. est-ce que dooñu ko wax benn yoon. non non non parce que xam nga dafa am démarche comme man parlementaire la te tey laa leen saisir maa ngi xaar quarante huit heures la réponse du président. Bara Gaye sa euh, naataango euh, nekk itam ci assemblée nationale nee na dañoo war a déglu premier ministre bi ba xam décret bi ñuy wax moo ko contre contresigné am déet ndax yow ànd nga ci loolu ak dialogue bi nga xam ni président Macky Sall annoncé na ko yéen pare ngeen pour wuy ji. mais nooy dialogue en pleine campagne yéen a ngi nooy dialogue ak boo xam ne jeexal na Khalifa Sall incha allah bu gagné élection yi après sa prestation de serment dina woote dialogue boo xam ne inclusif muy tax ñëpp toog ñu waxtaan. waxtaan réew mi 15 décembre wala. non non 15 décembre doo am élection ñu ni non lii prétexte la xam nga xam nga président ba Gaye yàlla may na ko c'est un homme d'état na ci gouvernement am na expérience baax a baax mu def xam na ko décret boo xam ne bi ko président waxee ba léegi kenn gisu ko te moo ko war a contresigné mu waroon ñëw démb gouvernement yor ko wala président commission des lois yor ko. jaadul ñu woo premier ministre def ko yow décret bi ndax contre signé nga président premier ministre yow li ñu lay waxal temps et temps ci loolu nag comme que ñu ngi ci ci période d'urgence comme ni ko tuddee yaakaar naa ne président dina dina dina wuy si li nga wax ci élection wu 15 euh, décembre bu ñu nax sénégalais yi gis nga lii lan la ay mbapat dañoo jël ne dañuy def élection le 25 août. bu ñu koy wax xam nañ ne jour màggal la woon waxuñu jour màggal la woon. Hmm. ñu dem ba ci biir pour mën euh, ma kii bi ñu ne léegi quinze décembre gis nga quinze décembre ñoo ñoo ma xam xam naa lu tax ñu choisir quinze décembre dañoo choisir quinze décembre pour mën a reculer waat élection yi parce que quinze décembre dafa tombé préparation wu la fête de Noël sénégalais yi day dem vacances. ñu nekk diaspora dañuy mm-hmm. ñu toogee nag ba keroog dañuy war assemblée nationale ne assemblée nationale ah gis ngeen de date bi ñu jàppoon de xam nga ne datu fête la teelteel nangaar nag comme que léegi assemblée nationale may nañ ko sax bu la neexee sax non non non assemblée amul prérogative joxe date pour ñu dem élection dans une constitution on ne de date dans la on met quarante cinq jours au plus et trente jours au moins C'est ça qu'on dit. On ne dit pas le 25. Dans une constitution, on n'écrit pas dérogation. tey ma wax la benn piège bu ñu def gis nga boo liiree. oui pour terminer page bi ah, nga may ma. oui la proposition de loi constitutionnelle numéro 04 2024 portant dérogation aux dispositions de l'article 31 de la constitution de la République xam nga loolu lañ boo demee page numéro deux deuxième paragraphe présentant l'exposé des motifs il a été indiqué que la présente proposition de loi vise à modifier l'article 31 de la Constitution. mooy lan. mooy loi bi proposition loi bi leen jox leen leen di ñaan pour ñu modifier ko. il est interdit de modifier l'article 31 parce que euh, qui a une clause d'éternité. Mais l'Assemblée nationale, de par la commission d'enquête parlementaire, on demande à la commission d'enquête parlementaire, article 1 il est constitué une commission d'enquête parlementaire portant sur le processus électoral pour le scrutin présidentiel du 25 février loolu mooy lan loolu li ma liir du njëkk ak li ma liir bu mujj est-ce que benn la. fële dañuy wax ne soupçon de corruption lan la wax moom la ñu bindee mais commission bi xam nañu ko demandé mu enquêté sur le processus électoral. d'accord gis nga gis nga gars yi seen seen jàngat yi ni que ni ñu ko organisé dañuy yóoxu ci kaw et soupçon soupçon euh, corruption corruption mais tey. liñ jox tey commission bi dara wanewul ne dañoo war a enquête ay juge honorable député Sanu ñu ngi lay sant di la gërëm bu baax a baax ci nu nangoo euh, tontu suñuy laaj. jërëjëf waay merci maa ngi leen di nuyu di gërëm. di fàttali ni député nga ca assemblée nationale nga bokk itam ci coalition. taxawu Sénégal. coalition taxawu Sénégal. coalition